ginnaaw sorti Jili Njaay bi doon biral ni woon na ginnaaw Gallo Ba maire de Mbacké yi nekkit ministre de la fonction publique doon ko jàppale si wàllu politique moom Jili Njaay mi bokkoon ci mouvement des marabouts républicains du département de yi tey jii nag ñoom yooyu nag démarqué wu nanu si wax jeeg taxawaay bi Serigne Modou Mbacké coordinateur mouvement bi ak ñamu àndal ñëpp gën a teere seen ànd si ginnaaw Gallo Ba position bi ñu leeral nag mooy ñun ay responsable ci parti bi lañ bokk ginnaaw bu ñu nekkee chef religieux ba noppi tamit dañoo nekk ay responsable ci parti bi muy parti APR di jàppale président de la république monsieur Macky Sall dernier nekk ci ginnaaw maire ministre fonction publique monsieur Gallo Ba ñi xam ko muy nit koo xam ne ab taxawaayam ci dëkk bi ak taxawaayam ci réew mi ak taxawaayam ci parti bi kenn dootu ko nattable kon nag buñ gisee ñi am ay paroles yoo xam ne wax nañ ko jëmee ci moom te nekk di ànd ak moom di ko jàppale duñ mën lu dul yooyu ñi génn leeral nit ñi lan mooy position mouvement bi ak lan mooy taxawaayu Galabo ci dëkk bi mouvement bi nag liñ nekkoon démb ci lañ nekk ba tey mooy di jàppale président Macky Sall nekk ci suñ darnier responsable bi nga xam ne mooy monsieur Galaba ca position ba mu amoon bañ ko xamee mu dugg ci parti ba nag ni gis nañ ne chaque jour day def effort yu ko yokk waaye deful lenn lu ko wàññi. kon nag kooka buñ génnee wax ko ay wax ñun ñi nga xam ne ñooy ànd ak moom guddeeg bëccëg danañ génn am luñ leeral liñ leeral nag mooy Galo responsable la boo xam ne li ñuy réccu ñun waa Mbàkke muy yeex gi mu yeex a ñëw ak yeex gi ñu ko yeex a jox dëkk bi. gën naa nag xuus moom mii di Serigne Mamoun Mbacke ne nag li Ndiaye mi ngi si erreur li ko kii mu bàyyi jëfal mérité wu lii. loolu damaa yaakaar ne Djily da ko yeex a def ndax li tax Djily da ko def mooy juróom-ñaari at koo ànd ak nit wala lu ko ëpp ah li ngeen seqee ñaar chaque fin de dugg sa loxo te mu soo génn wax yaakaar naa ko soo lu ëpp lu ñu fi nekk defoo

dama yaakaar ne njuumte la mais yaakaar ne bu demee ba toog ba àndata conscience dina xam ne dafa juum ñoom nag jàpp nañu ni ne serait-ce que réalisation yi Gallo def rek war naa tax ñu xam ni mi ngi liggéeyal askan wi kon ku jar a jaajëfal la commune bii nga xam ne mooy Mbàkke tamit bi ñu ko joxee léegi mëtagul un an waaye mi ngi fi def ay réalisation yoo xam ne ak di taxawu ay chantier yoo xam ne wax dëgg yàlla xam nañ ne bis bu fi defee mandat 5 ans luñ rëccu woon ak luñ ko ko yeex a jox dañ ko rëcc ñun nag ñu ngi ci dernier di ko jàppale amuñ benn ku ñuy xool moom lañ àndal moom suñu responsable tey mooy suñu responsable ëllëg te dañ ko jàppale ndax Gallo nit ku social la ku jàppale nit ñi lépp lu nit di yëngu ci dëkk bi moo xam da ngay màggal moo xam da ngay dëjël moo xam da ngay ngénte moo xam yëfi xale yi la wala yëfi jigéen lu man mi ngi koy def bërki démb rek gis nga ko ñeenti bee màkk la génne joxe ko fii ci dëkk bi te loolu kenn mësu koo def. Djily Ndiaye yëkkati woon coowal législative yi échec bi amoon ci Mbàkke ak tamit proximité Galoba ak Sonko moom Serigne Modou Mbàkke doon lu mu sofantal. li élection législative yi bokkutoon local yi waaye lim ci war a lépp def na ko ñun ñi àndoon ak moom ñun ñëpp xam nañ ci lool def na ci alalam luye na ay oto joxe nay xaalisam lim am daal nga xam ne am na ko muy taam di xam-xamam di alalam def na ko ci ndam nag yàllaa koy joxe maanaam joxu ko ko. waaye ku xool élection yi liñ li ñu wate Mbàkke danañ xam ne am na fi responsable bu mag am na ñu ñuy tudd di ko tudd ñoo ne Gallo defuloonum naw la tudd leen ndax am na ñoo xam ne ku bañ président seen image a tax wala seen i jëf moom nag ku ku ànd ak moom wala nga gis ko da nga respecté président da nga gën a bëgg président Sonko ak Gallo xamee nañ waaye Sonko ful la jim am ba dem créer parti am nekk ca Gallo yaakaar naa Sonko ëpp ko fulla bu fekkoon ne bëggut a bokk APR wala bëgg bëgg naa bokk feneen bëgg naa bokk Pastef day dem ne Pastef laa bokk bu ko neexoon dem créer parti am ndax Sonko mi créer parti ëppalu ko lenn ëpp ko xam-xam ëpp ko lenn kon bu fekkee moom mi ngi wax ne Macky Sall la àndal loola amul lenn lu ko ci nit man a jame foofee nag si njaayeen mu doon yëngu si wàllu politique ñam ko bokkal tey ji lañu gën jóg defiyee ko jàpp bu demee ñoom des nañu kat ngir liggéeyal APR mën naa yóbbaale kenn de waaye du génn këram ndax bu ma ne yóbbalu kenn waxuma dëgg ndax am na jabar am na doom waaye ñun la nga xam mooy responsable yi nekk njaayeen ñëpp waxtaan na ma ak ñoom ñëpp xam nañ ne jiili bàyyiwu leen woon ci galo ñoom galo ñoo bàyyi woon seen bopp ci galo ndax i jëfam. man nag li ma comme li ma wax rek sama mbokki nawle gor yi sama mbokki gor yi li ñu wax lan la ànd ak ñoom ndax man ba may dem xaw ma lu xaw ma lu ma yóbbu dañ maa ànd ma conférence presse waxuñ ma Macky Sall waxuñ ma galo ma àgg toog ba tey jii nag la ñu wax dégguma ko fekkuma ko damaa dem fekk ñu wax pare ma àgg toog ñu jël ma dugal ma ci bi waaw ñun nag la ñu waxoon rek ñu ngi ci ginnaaw gaal di ko jàppale guddi ak bëccëg suba ak ngoon. di fàttali teewoon na fa adjoint au maire bi bokk ci kàngam mouvement bi di Serigne Saliou Bousso dellu si nañu yaatu ci réalisation yu nu amal ñoom diirub at ci wàllub santé éducation voirie sociale éclairage public extension ci wàllub électrification ak it extension ci wàllub hydraulique ak yeneen geneen waaye tamit tali Daaru Salaam bi nga xamante ni suñu sukkandikoo ci moom nekkoon na demande sociale moom Serigne Saliou ni jamono jii daal l'essentiel daal la nekk mooy liggéeyal askan wi. yaakaar naa euh, lii nga xam ne lépp moom lañ lim ci at ak ñaari weer yaakaar naa maire bu ko def am nga bilan kon nag li nga xamante ni moo ci war a topp mooy dëkk bépp gunge ko li nga xam ne moo ci des fañ bëgg mu àggale ko bu ko defee mu àggale ko ci kàttanu yàlla